ni leen ko waxee ci suba ba léegi ñi ngi ndar ci sant Serigne saaliw Ahmadou gay Fifty bu tapis vert moo koy def sànq ñi ngi leen di wax ci benn vidéo bari na kilifa yu fu nekk ku ngeen fi gis bu leen bett ndax kiy def bis bi moo toll noonu loolu rek ñi koy firndeel mooy njabootu Serigne Modou Kara gi ngeen jàkkaar lool noo rëy ni Serigne Ahmada ànd ak ay rakkam ak njabootu borom daaru gépp ñëw teew ci bis bi ngir seen diggante ak ki nga xam ne moo woote sant Serigne Saliou muy Ahmadou Gaye yaram ginnaaw bi nu la nuyoo nga nuyu mbokku internautes yi wax ñu rek euh, sa diggante ak ki nga xam ne mooy def bis bi ak teewaay bi fii. Euh, aouzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi barakati Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa di ko jaarale ci nga xamante ne bi ni mooy sunu buntu ci sëriñ bi muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des mourides mu yàgg fi di ñaanal sëriñ Bassirou Anta Niang xalifa borom Daaru Muxti di nuyu waa BG TV di nuyu waa Ndar ak mbokk taalibe bi yëpp ak sang yu baax yi fi fekk ñëpp mu mel ni wax ngeen ko léegi Amadou Gueye Diop 50 di taalibe sëriñ Saliou borom tapis vert dafa nekk suñu mbokkum taalibe mhm. nekk suñu xarit xëy na ñi mu xam bari na lool waaye suñu digganteek moom nag dafa jiitu yi yëpp waaw dañoo jaar fu bari mhm. plus de dix ans ngi nii ñuy ànd ci dëgg di ànd ngir Sëriñ baax ma xam ko ci fulla ak fayda ak nangoo liggéey ak doylu kon nag képp koo xamante ne bi nii gis naa nga teg foofu sa tànk rek ñun dañ lay safoo te danoo xam ne amul ci ku tedd ki sago te ñun nag ay jaam-jaamaatam lañ buñ gisee koo xamante ne bi nii ku tedd ki jaral na la lu ne rek ñun dañ lay jël taf la ci sunu bopp waaw te loolu lañ gis aw doxinam moom la sang yëpp gis boo xoolee nit ñi mën na jënd ay fruits jënd ay xar jënd lu nekk ay wax dëgg yàlla nit ñi moom mënoo leen a jënd ku am ful la bokk kenn mënu laa jënd boo leen doon jox ay milliards tamit du tax nga mën a jënd nit ñi du dëgg waaw kon nag am na ci loo xamante ne bi nii bu ngeen ko bu ngeen fi gisee mbokk taalibe yi gis fi sang yi rek dafa fekk ni moom moo ko jëf jikkoo ma tax loolu waraloon suñu teewaay ñu jëm ci màggal yaaram nga amoon loo ñu taamal at yi ñu génn loolu ndax mbokki taalibe yi dinañ ko mën a xaar waaw <laughs> loolu dañ ne woon dañuy bàyyi. waaw dañuy bàyyi ku tedd ki rek moom mii borom bis bi. waaw nu mu ko bëggee ci suñu jëm yi rek ñu defee ko noonu waaye nag. ah waaw ñu xaar rek. xam nga yaa ko tàmmal taalibe yi ah, waaw te waajtaayu màggal yooyu moom. dañ koy xaar ci yow. wallaay dëgg la waaw waaw kon dinañ ci dinañ ci jublu ndegam ñu ngi koy xaar rek. dinañ ci jublu bu baax a baax dinañ ko waajal bu baax a baax incha allah. jàkkaarloo presse bi waaye li ñu ci doon xaar euh, daanaka am na lu mu ci junjoo mooy soutien bi nga xamante ne que daan na ko apporter le président de la république ñu gis ni élection yu majeures yi fi am yëpp euh, mën nañu wax ni que moo ko tax a gagné en quelque sorte mais dañu gis ni que boobu tey nguur gi daf ko daf ko xaw a mel ni lu ko wan gannaaw waaye tey à notre grande surprise dafa féddaliwaat soutien boobu ne fi mu ko teg mooy ci jërëjëfe Serigne Touba googu. mu waxoon kon donc mën nañu xaar soutien peut que PVD ak diwaanu Bamba fépp ci soutenir le président de la République ci élection locale yu ñu jëm. waaw xëy na loolu duñ ci xóotal sax waaye li nga xam ne mën nañ ko cee wax rek ñun ñëpp a ko gisandoo moom sëriñ bi daf ñuy faral di wax naan. Hmm. nit booy def te yàlla tax da nga yemale merci ak merd hmm. bu fekkee li nga def yàlla rek a tax mhm. dangay nga yamale merci ak merde mhm. loolu nag dafa tënk wax ji mhm. moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nii day wax naan day faral di wax naan ba ci bande bi sax damay xool ci moom Serigne Touba. nee na moom ngërëmal Serigne Touba fu nekk la koy wër fu nekk la koy xool chaque individu maanaam nga nekk président wala nga nekk député wala nga nekk sax ñu baal ma ci wax ji tuurkatu mbalit sax moom day xool ci yow nu muy def ak nu muy ndaxante ak yow ba am ngërëmal Serigne Touba à travers sa jëm kon moom foofu la teg tànkam moom du jàpp di bàyyi déedéet nee na jàpp bu yàlla taxee doo bàyyi waaw ndax li muy def moom Serigne Touba tax jërëjëfe Serigne Bamba ja nga xam ne moom la président waxoon ca Mbacke Bawol moom loolu la ko jàppee amaa jëmmi nag yi nga xamante ne bi nii day nuur yëfi àdduna moom loolu daf koo ñorul daf ko ñoru ak nu nit ñi mën a doxalee ak njabootam loolu ñoru ko ndax tàggat na ak njabootam jëlale naa jëmmam ji de mm-hmm. waaye tàggat na ak njabootam ci ci ci doylu mm-hmm. ak ak ak ak doyloo ku tedd ki ak mm-hmm. amuñu leneen lu dul Serigne baax tàmbalee ci moom yam ci moom. waaw kon nag moo tax li li buur wax léegi nii. ñun nag ay lantinoor lañ. xëy na am na ci loo xam ne dañ koy bàyyeek ak borom. bu jotee moom moom fu ñu joxoñ rek. foofu la bu ñu joxoñoon ci piscine bi sax ñu xaar ko fi. kon ñun jéemuñu wut fenn fu ñuy far wala kenn ku ñuy àndal ñu Cheikh Ahmadou Kara rek lan desal fu la joxan rek ñun foofu la. amalgame bi ci nit ñi di am nu ngeen koy dundee njaboot gi. duñ ko duñ ko bàyyi xel. ndax xam nga bu fekkee 24 heures li sëriñ bi di wax 24 dafa gàtt ci li mu li nga xam ne moom. war na ko bind ci sëriñ Touba. kon ñun ñii di wax ak yow vingt heures yi day gàtt ci ñun ci li ñu war a méditer. ci li Cheikh Ahmadou Kara taalif ci sëriñ Touba. maanaam boo diggante boo génnee diggante bi ngay dallu. ba jóg ba sangu ba julli yaa ngi waxtaanee sëriñ bi bu heure xewlu jotee nga barkeelu nekkaat ci sëriñ bi kon diggante boobu doo am temps di déglu nit ñi amalgam wala parce que sunu borom dafa ñoo xam dañ ko fi ne ko doo yàlla di jaamu leneen yonent bi contre nañ ko ba ba xaañ ko xeer am na bis am mbokk bi buy am lu muy ñaxtu sëriñ bi ne ko ndax mas ngaa gis ku ma xaañ xeer mun ko déedéet mun ko te yonent bi mooy ngën gi mbindeef te xaañ nañ ko xeer ku tedd gi 33 ans nekk na ko ci loxoy tubaab bi exil après exil mhm. kon am na loo xamante ni bi nii lu yàlla amul yonent bi amu ko Serigne Touba amu ko moom Cheikh Ahmadou Kara mënu ko am kon li nuru amaal gaamak ak wala ay commentaire ak déedéet ñun ñun sëriñ bi du ñu déglu loolu négatif sax waaw mhm. euh, maanaam bu mettee ci état sëriñ bi day ñëw indi soutien benn soutien boo xam ne c'est des soutiens inconditionnels mooy du ko teg ci benn condition waa këram jàpp ci jug massivement yëngu voté bindu bindu la ji jàpp su loolu passé day mel ni alliance boobu musul am. xam nga loolu lu ko waral. Mhm. ndax sëriñ bi dafa gëm ni réew mi day réewum sëriñ Touba. Mhm. te réewum sëriñ Touba warta am baj-baj. dara waru fee tàkk waru ñoo mel ni ay Mali ki Guinée ki feneen ak feneen ndax li fi Serigne Touba feeñ moom loolu lay xool moom yoonam ci ki faloog ak ki fi nekk moom ndegam réew mi day réewum sëriñ Touba kon fépp foo xam ne dina fa jaar ba jàmm am rek moom ci loolu lay teg tànkam dañuy liir situation xam ni moment boobu loolu rek mooy mën a indi jàmm moo tax sëriñ bi di doxalee noonu bu fekkoon leneen mooy indi jàmm neneen noonu lay doxalee waaye moom saa su nekk rek li ku tedd ki di di borom jàmm moom loolu lay viser ci loolu rek la nekk wasalaamu ala mani tabaxal huda googu ci la yar njabootam ci lañ nekk ñun. moo tax sans condition boobu noonu di demee noonu parce que boo indee condition rek yi fi adduna day dugg te fi àdduna bu duggee ngay tàmbali ay pouvoir ak ay looy bëgg ak looy bañ te maanaam moom moo ne Ahmadou Bamba ci xol dara da caa leneen xaju ca loolu la. te condition bu ñëwee rek yow yaa ngi wut leneen yi fi adduna wala dara wala nooy placer sa njaboot déedéet waaw ñun sëriñ bi daf noo yar ci patience. ba longanimité nag la ñu wax. waaw daf ne na ngeen fekki quatre vingt dix noo nom de Dieu Assabour yéen ngeen toog foofu maanaam nu mu demee baax na l'essentiel nañu dund Serigne Touba suñu biir xol. ndax moom moo taalif ne xaalis mi ñëpp bëgg yàq la gën a mën ci defar ne boo ko waxee ku xamul dalay daal di daw far ndax day yaakaar ne yére woo yéene woo ko teraanga te xaalis moom li muy yàq moo ëpp li muy defar nan xalaat bu baax àdduna bi. Mm-hmm. Hmm? nan xool ni xaalis di di di di yàqee mbir yi rek fu ne la mën a dugg. mën na sax tàqali bàyyi ak doom mën na tàqale mag ak rak mën na tàqale jëkkër ak jabar moom xaalis. kon ñu la déggee lépp lu muy yëngu moom sëriñ bi la ciy dund. mais est-ce que dina yomb ci sama classe bi ñi nga xam ne ñoom. waaw waaye na xam nga ku tedd ki moom daf ne ku tedd ki moom dafa maandu. loo ko jox ci sa bopp loolu lay teel. waaye boo ko bàyyee lépp moom daf ne bamba doy na sëkk làquwaay te doy na sëkk wéeruwaay loolu nag doo ko wax rek da koy dund gëm ko ku tedd ki dala ciy fekk si. waaye Serigne tubaa du des gannaaw borom bis bis Amadou Diop mi xam na li may wax yàgg nañ maak ak moom. fu ne jaar na fa wax naa la ko sànq. ne la sama digganteeg moom li tax ma jàpp ko du yëpp. Mm-hmm. waaw lu ëpp na fukki at. waaw te ci ngor. Mm-hmm. ak constance ak nangu liggéey ak ak doyloo ko tedd ki. moo tax ma téye ko moom xam na loolu. waaw te lu ma mës a nekk mu nekk ca. lu sëriñ ba nekk mu nekk ci te du ci feeñ. Mm-hmm. te ku ne xam na ne gis ngeen buur internet bi. ca ay coono la nekk ñun suba ci suba ba tey maa ngi ñoom sëñ Abdou Khoudous. kon moom bu ngeen gisee ñu bàyyi suñu yitte. départ Ndakaaru e, yenn heure yi. Mm. te ci suba ba tey ñun tooguñu dañoo taxaw. ñëw ngir moom. Mm. kon xam ngeen ni moom am na fum mu ñu féete. looloo tax nag. mooy li ma la wax sànq ci tàmbali bi ne la nit ki mën ngaa louer ay chaise. Mm-hmm. jënd ay fruits jënd ay xar waaye nit ñi. Mm. a ah, nit ku fonk sa bopp de moom wax dëgg yàlla alal mënu laa jënd. te fi gëm na ni fi ñëw ñëpp dañ fay ñëw ngir jikkoom mm. muy sang yi ngeen fi gis ak mbokk taalibe yi ba ci yéen ñii yëpp mm-hmm. jikkoom a tax mm-hmm. moo tax mu mën a def ak ku nekk mm-hmm. moo tax ñun dañ koy ñaanal rek Serigne Saliou mi tax muy def daal nañu ko gën a sàmmal rek teel na ko ah waaw jërëjëf ah, kon xam naa ne